bonsoir chers amis internet yéen mi safoo dañu bàyyi xel fii suñu people tv suñu people point net saa su dañuy am mbégte contentement di jàkkaarloo ak yéen kon nuñ koy defee te nag ñu seesi waxtaan suñu xarit suñu partenaire sëñ Bada borom Kéemaan fas yéene waxtaanee lépp rek loo xamante ne ni actualité people la waaye aussi njàmbaasaay li nga xamante ne moom mooy actualité politique euh, sans pour autant tarder dañ koy nuyu bu ko defee ñu dox suñu waxtaan sëñ Bada maa ngi lay nuyu euh, maa ngi leen di fay wax leen nuyu nuyu bu gën a riche mhm. di wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di nuyu sunu people di ci jiital borom kër gi DJ Yves di nuyu tamit eh, yow Ramatoulaye ak Thiandoum le grand technicien di nuyu sénégalais yi ak diaspora beeg ñëpp ak ñu nuy suivre di ñu topp. d'accord ñu tamit ñu ngi am mbégte partage ak yow li nga xamante ne ni moom mooy euh, émission bi sëñ Bada euh, jamono yële euh, passé nag ah nit ñi ñu ngi doon laajte la moo tax jëlatoo leen léegi ba da mu mel ni comme si que da ngaa xawoon a woon daal tuuti li nga xamante ne moom mooy média bi. waaw dëgg la noo xam nga léeg-léeg nga doo am temps jot gi. parce que bul fàtte ne tamit liggéey bi ak yenn activités yu bëri moo tax loolu rek la meeru dara. sëñ Bara ñu gis ni da génn euh, par rapport ak cool bi nga xamante jamono ji ñëpp ñu ngi koy dégg muy benn série bu bees bu tudd bété bété ki nga xamante ne moom mooy Soumboulou nag euh, di ci interpréter euh, benn rôle gannaaw nag kàddu yi nga xamante ne yëkkati na ko di ci wax ñu bëri nag génn ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay géer génn ku nekk di génn di défendre sa bopp ñu bëri nag ne dañoo ñaawle yow boobu la geste bi bi Soumboulou def yow bi nga déggee coole waaw euh, comme li ma comme li ma wax rek xam nga waxoon naa ci parce que nee naa leen euh, sumbulu moom lu mën a xew loolu du du c'est la première fois parce que defoon na ko fi rawatina ci mbokku bool bool te man mi bool bool laa waxoon fi wax ju ñaaw te ji encore mu defaat ko kon dafay mel ni maa tey la loolu nag xëy na yara di ko wonte weesu loolu ndax lu toll ni askanu tëgg nga taxaw wax leen lu toll noonu euh, loolu njuumte dëgg war weesuwul loolu parce que maa ngi gis ñu bari ñu ngi ñu ngi génn di ko rafetal. Mm-hmm. naan waaw Soumboulou li mu wax dafay jàngale mais c'est faux dañuy duul ñoom ñëpp waxuñu dëgg. parce que mën nga jàngale te doo doo doo doo vexé kenn doo saa kenn yonent bi sallallahu alayhi wa mooy école bu mag bi. Mm-hmm. te jàngal nañ jàngal nañu lépp te wax dëgg yàlla mos a gaañ mos a blessé kenn. Mm-hmm. kon li mu def du dëgg du yoon. loolu moom ñu ngi ciy insisté waat di wax ne. loolu état bi moo ci war a taxaw ba nga xam te ne série bi normalement dañ ko war a aj dañ ko war a téye mooy dëgg comme ah, ni. Euh, euh, comme sëñ euh, est ce que nekkul ne souvent nit ñi dañuy confondre personne ak personnage. waaw dëgg la mais nga confondre ñu parce que dafa taxaw saaga. donc lu mën a xew. non non ko waxoon rôle bi buñ ko waxoon mu taxaw saaga Diop xaas du ko saaga te pourtant moom li muy wax. naan wàllu waaso da ngeen a fàtte Sumbulu. Hmm. moom Mandiaye Seck ñoo doon génn te Mandiaye Seck géwél la woon. moom Mandiaye mel diggante boobu. diggante boobu maanaam te ñoom ñooñu lépp seen biir la woon ay ñoom Sanex ak ñoom Aziz ñoom Soso ak ñoom ñëpp amaana sax ñoo yàq diggante boobu ba diggante Mandiaye kii di euh, sumbulu amut te Mandiaye géwél géwél la ndax géwel dafa gën tëgg wala tëgg dafa gën géwel ah waaw Diop xaas mi takk ko nekk boroom këram tamit euh, euh, moom dégg naa setut Diop xaas seetul de ah, waaw mais seetul non sama xarit la Diop dama koo bëgg parce que yàlla def ndax dëgg yàlla kilifa la te li muy def mën na ko. Mhm. ndax chaque jour mu def ay résultat bokkul ak sëriñ si naxaate. Mhm. tey dey liggéey. Mhm. ndax fi mu toll nii gis nga ko euh, fee mu nekk ci koñam tabax na fa tabaxal na fa kër euh, kër jox yaayam. ba pare tamit defar fa salle de musculation wax fa lay xale yi di seen yaram. ba pare tamit mi ngi yor tool bu mag boo xamante ne nii xam naa ci dara. te mi ngi waaj a def lii di téléfilm aussi. d'accord mais lan moo tax euh, nga ne Diop Khass setul. waaw non loolu loolu koy dëgg la laaj leen ko keneen Diop Khass dafa rax de ay law beeg Diop Khass dafa rax law be ak géwél. d'accord ok gis nañ ni aussi euh, Sali Babel euh, moom mii nekk fële ca 2STV moom yéen a yàbbi ci mbir mi keroog ba mu doon def li nga xamante ne ni moom mooy seeni plateau. Euh, after plus bi euh, mu yëkkati nag euh, ay kàddu jàppale ko ki nga xamante ne moom mooy sumbulu ba wax naan loolu warut a génn ci kaddu sumbulu ba yëkkati ay yeneen kàddu teg ko ci kawam ba ba ñëpp ne est-ce que tamit tey ñoom ñaar nekkul ne dañoo dañoo tey du mu dañoo am souci ba tax na Sali Babel jaarale ko foofu noonu. waaw non yooyu moom loolu moom seeni seeni seeni problème bopp la man am na ci détails yoo xam ne duma ci dugg. Mhm. waxi càgga moom sama yoon nekk ci. <laughs> Mm-hmm. laaj ma ci lu ma xam. Mm-hmm. d'accord mais eh, yaa ngi naan sànq ni série bi eh, dañ koo war a eh, ajandi mais tey est-ce que Soumboulou joué boobu rôle wala yëkkati yenn kàddu teg ko ci kaw génn ñi te te pourtant Sanex moom moom tamit mu ngi yàq ñi nga xamante ne ni moom mooy ci beneen ci beneen boor bi mais tey lan moo tax bi sumbulu waxee rek ñëpp focaliser wu dem ci Soumboulou. non Sanex gars yi dañ koo bërgal Sanex moom ci yàq la dëkk Sanex mosul def lu baax ci réew mi di Sanex fi njëkk def théâtre di saaga. ba léegi sénégalais yi jaa ñu bari di di roy ci loolu. Mm-hmm. Sanekh moom amul benn importance ci réew mi wax dëgg yàlla mosu fee defar dara moo moo soso moom ñoo yem nga xam te ne chaque jour day def ay plateau di invité ay faux sëriñ. Mm-hmm. lu toll ni télé TFM ñu war a wax dëgg def dëgg jàngal nit ñi waaye duñ ko def ay faux plateau la ñuy def parce que pour lan encaissement. Mm-hmm. waaw lool loolu la ñooñu nag amuñu benn njëriñ di promouvoir ay sëriñu dóorkat. ñooñu duñ ay référence man ñooñu du ma wax sax bëgguma wax sax ci ñoom. gis nañ ne aussi ni fan yi eh, yow ak eh, Adamo eh, da koo defaral benn vidéo di waxal ak moom ne ko pour mu génnee làmminam ci li nga xamante moom mooy coow idaali ak ndaw si la. waaw xam nga problème boobu. Adamo xamu ci dara amaan a bi da ko war mu bëgg a dabe parce que man. depuis mois de janvier. la lama ndaw si contacter li tax mu contacter moom ku ñuy wax Dias Pro. Mhm. moo ko jox sama numéro. ne ko wool sëñ Bada da doon liggéey idaali Mm, mu ameel ko salaire de mois. nee na chaque weer cinquante mille la woon. ñoom ñaar doon jàppalante moo ko doon jox paas nag. léegi au moon jot pour traité cas bi yàlla dogal fan yi ma am jot ci laa wooyee Idaly. woo ndaw si mu ñëw. ñu dugg sama laay bi ma leen waxtaanee Idaly ne ma li ma bëggoon sëñ Bada mu ne waaw mu a ma dama bëggoon nga live ba pare fekk boobu live bi ñëpp a ngi déglu. boo live ba pare nga woo ko ah déet dum dama bëgg lépp leer parce que ndaw si nee na da nga ko ameel xaalis te audio yaa ngi nii mm-hmm. te nangoo koo fay depuis boobu donc da nga ne ko doo ko fay dara mm-hmm. parce que i ñaar amul contrat amul dara mm-hmm. te mënta am mën du am contrat parce que idaali ci boppam li mu yor bu dee société informelle la amul kayit parce que dafa ku ibi seen youtube am rek la di dox te idaal day tuddoo day tuddoo Wally Seck di tuddoo Faramareen donc mu daw ndaw si expliqué bi mu ndaw si expliqué nga aada moo ci jëmi boppam daa di woo ki nga xam te ne mooy Babacar Diaspora. bi mm-hmm. mu woowee Babacar Diaspora expliqué ko kaa bi. Mm-hmm. léegi man waa suba teeli woo ma. Mm-hmm. ne ma ndaw si ñaata la ko iddaali ameel. Euh, ñu ne ko temps man leen cent cinq mille ñu ne ma ñoom dañ koy fay. bi ma leen waxee ne waa suba teel ñoom dinan fay. donc euh, ci la Pascal duggee ci live bi. bi Pascal duggee ci live bi ci lañ ne euh, sëñ Bada jox ma numéro ndaw si man ma fay ko. Pascal ku ko xam xamee ko Wally Seck mhm. donc loolu xëy na doon na doon gàcce ci ñoom parce que faramare Faramareen yi mhm. ñu ameel bor nit donte cent mille la un million mhm. euh, ñuy seetaan suba teel di ko fay donte yàgg na leen ko defal nga parce que suba teel du c'est la première fois mu defal leen ko ndax Baye Sall bi mu demee tëdd hôtel amul lu mu fayu ko kenn fayu ko mais kii di euh, maxu suba teel moo ko fay Omaro tamit bi nga xam ne bi mu demee organiser cantam yooyu. Mhm. Euh, xër bay bëgg a dee gis ay xaru jàmbur ak bëy yeeg nag yi yeewe mhm. mu tekkilu ko lépp def ko ci cant gi. Mhm. yàlla nattu ko amut lu mu fayee ndax yàlla dafa mën a seetaan. Euh, Sidi Diop moo jógee Gambie tëgg ba pare jox ko xaalis. Makou Soubatel complété ko mu fay. kon ñoom yàgg nañoo jaar foofu ak ñoom. léegi xay na xay na tey nag moom bii Pascal jël ay responsabilités am daal di fay noonu rek la demee. d'accord mais tey euh, euh, sëñ Bada bu ma la déggee dafa dafa mel ni euh, comme si que ni même tey tey bu fekkente ne ñoom Baye Zal ak ñoom Omaro jóge nañu suba teel dem fële nga xamante ne ni moom mooy ca Faramaren mais saa suñu amee souci kii nga xamante xamante ne ni moom mooy Matar Diop suba teel daf leen di taxaw. waaw non xam nga parce que Matar suba teel mooy seen baay rek loolu loolu moo tax waaw bàyyi nga ko amul droit di seetaan doom mm-hmm. waaw noonu la demee lu mën a lu ci mën a xew rek loolu d'accord ah. mais yaa ngi naan ci sa euh, biir wax nga ne euh, euh, ci coow li da ko da ko da koo raw tey mu bëgg cee dabu ba tax na yow tamit mu jaral la nga def vidéo pour recadrer ko te pourtant amoon na fii nii sëñ Bada ay jamono fii nga doon toog di tagg Adamo comme te est-ce que coowal boobu noonu war na tax ba yow nga defal ko vidéo di ko ci yëkkatil ay yenn kàddu yu ñaaw di ko ci kaw dara. xam nga boos maak moom àndu caganan ànd. moo tax àndu caga àndu intérêt daal maanaam du ànd bu sincère nekk lu ànd bu dëggu loolu la moo tax bu ñu neexee raayalante ginnaaw suba bu ñu neexee tamit gat sa gat rek loolu miin nañ ko maag moom loolu aw yàquluñ dara mm-hmm. waaw loolu loolu du dara mm-hmm. waaw waaye daal xamal laa la ñaar leen daal dinaa ko wax mm-hmm. moom kaa bi da ko raw te da cee daanu parce que bi mu ñëwee dane Pascal du fay ah ndax kaa bi leerul Pascal du fay loolu la waxoon Pascal nag xawoon na hésité jéem a topp Adamo waaye nag comme man li ma leen wax leer nee naa leen tamit Pascal yow li nga wax boo ko defee baax na waaye boo ko defut tamit ñu xam ne lii moom seen jikko la parce que ñëpp xam nañ ne Marie Yacine fii lay taxaw dig la oto te du la ko jox ne la dinaa jox kër te doo gis këyit waaw ah, loolu xam nga man dëgg rek laay wax moo tax gars yi bëri ma mere maa ngi koy wax démb rek parce que maa ma Mandiaye Seck ñi ngi nekkoon. Mm-hmm. Mandiaye ñëpp xam na ne jamono ji mi ngi tëggaat mi ngi way lu neex. Mm-hmm. parce que mi ngi subateel. Mm-hmm. ma ko subateel moo ko récupéré ko ci ay loxo boole ko Paco Mboup muy ménagère am donc chaque samedi mi ngi tëgg almadi mm, di góorgóorlu vraiment album moom bi nga xamante ne tamit Baye moo ko téye ba léegi nii aussi mënu ko fexe ba jox maa ngi gis nga ku ñuy wax Mansour Diop mm-hmm. Mansour Diop bu njàpp njàpp zoo mm-hmm. te njàpp tuddee ko doom bi mm-hmm. donc wax na lu am solo jàkkaarloo nag Baye Sall ne ko hee mun a mun a ko album bi bu dee dix millions lay laaj wax moo ko ma jox la dix millions nga génne album Madiaye Seck bi carrément waaw ah. léegi pourquoi léegi ki nga xamante ne nag moom bay Baye Sall te Wally Seck di patron mhm. pourquoi mënuñoo génn nag euh, album album bi lan moo ko té te boo waxee booy di la saaga di la taf naan mara di peuple dafa contre Wally da ko iñaane Wally déedéet mais ñun dëgg rek lañuy wax mhm. waaw loolu rek la d'accord mhm. <laughs> jamono yëlee ci ginnaaw mooy njàpp mi ngay wax ñu gis ni jamono ji euh, moom moom njàpp euh, day topp Mandiaye Seck Eh, ba si ay ay répétition ma mu koy jàppal micro di ko aaw lan moo waral loolu le a ah, waaw ñoom ñaar dañuy ay morom rek bokk génération eh, bëggante rek. Hmm. bokk liggéey bi. te xam na ñoom ñoom ñaar am naan carrière. faramaare hmm. bu dugg bu ko dugg saat encore bi euh, suba teel est ce que loolu du indaat encore yeneen i polémique. déedéet loolu ça n'a rien à voir parce que ki nga xaritool moom da ngeen a xaritoo waaw suba teel dafay liggéeyee kee Fara Marine Waly Seck dafay liggéey contrat la fa ku nekk yor loolu la rek waaw mais kenn ku am nga sa vie privée nga boo xam te ne ku la neex mën nga àndal ku neex mën nga defal mi ngi mel ni man man ken tënku ma man fu ma neex dem ku ma neex laay àndal ku ma neex laay waxal li ma séq ak maxu nag dama séq ak moom parce que teranga laa séq ak moom te teranga ak yow maxu moomu ko ji wax dëgg yàlla euh, ndax defal na ma loo xam te ni mën naa ne ginnaaw yàlla sama yaay sama papa kenn defalu ma ko euh, donc parce que ni ma koy waxee rek laay VIP man moo ma njëkk a booleeg Euh, du euh, euh, appel nu wootante ma kontaan ci bég ci pap Diouf aussi mooy musicien bi ma njëkk a way mm-hmm. waaw ci Sénégal mm-hmm. mooy musicien bi ma njëkk a way kon loolu du ma ko fàtte ma ma ko suba teel tey mooy ki nga xam ne moom bokk na kii ma ci bis ma njëkk a taxaw mm-hmm. waaw bu ñu amee problème mu njëkkati cinq cent mille joxe loolu du ma ko fàtte abadan daay man moo tax gars yi dañuy wax ne mara du peuple yow bu ñu la wooyee da ngay dem ak looy xaar pour dem ci mariage may xam ne gars yi man li ñuy toppee gars yi ak man li may toppee gars yi du benn mhm. parce que ñoom li ñuy topp woykat yi di daw pëltoon seen ginnaaw pour ñu leen baatre xaalis di leen may déedéet mhm. man nit euh, dafa am nu ma koy jàppee waaw euh, maanaam mooy nit ku baax rek nga ji ma teraanga ba ma ko defee rek ma jàppee la mi ngi mel ni Ibra Naajo rek Ibra Naajo gis nga ko lim ma ji mhm. hmm? xaw ma fan laa koy fayee waaw sëñ Bada ñu gis ni eh, jamono jii ni eh, Omaro génn na eh, wax ci balaa ko Seck mu ne Waly day arrêté woy yow nga def si vidéo nga ne kàddu moo doo ci sa doom. waaw ah, parce que Omaro moom man li ma dégg yëpp lu mu mës a wax lu ci bari du dëgg. ndax fii la génn waxoon fi waxi terrain. man leen terrain yooyu du dëgg coowul aada moo gi nga xamante ne dafa attaqué Waly Seck attaqué Amady Badiane. attaqué kii nga xamante ne tamit moom mooy Baye Sall ak ñooñu ñëpp. ak njàpp mi nga xam ne chaque jour aadamoo di ko attaqué. te muy benn. Euh, man leen lool loolu lañ bëgg a fay moo tax ñu génn mbirum terrain kon man Omaro du tax mu dóor sama doom. parce que Wally Seck ku ko xam-xam ne ku ne waaye dafa nekk ci mu ndax ni mu koy waxee te dinaa ko waxaat. Wally Seck ngénte wuñ ko xaalisu xasida. ngénte wuñ ko xaalisu jànkatu kaamil. ngénte wuñ ko xaalisu nappkat. ngénte wun ko xaalisu commerçant buy jënd ka jaay. waaye Wally Seck dañ ko ngéntee xaalisu way. yaa may dégg. Mm-hmm. parce que ay géwél nañ ñoom. Mm-hmm. way nañu xam. Mm-hmm. kenn ku ne bi lay yàlla di bind dafa am ndox mu bind la ñi da leen bind pour ñu jàng xasida ñii pour ñu jàng wàcc ay kaami jàng alxuraan ñii birokat ñii marsa marsan ñii nangam. Mm-hmm. waali sekk yàlla suñu borom da ko bind pour muy way. yaa may dégg loolu loolu mooy mbiram kon day way ba jóge fi ay doom di way ay sëtam di way ay mbokkam di way. ba àdduna di tukki. d'accord loolu la ok yow daal gëmoo sotti bi nga xamante ne ni ñoom bay si Ndiaye def nañ ko euh, ak ñoom Baye Zal ni que ni Wally moom léegi moom jeex na dootul wéyati. dëgg li ma la wax benn problème moo am mooy. Mhm. mariage yi ñëpp xam na ne ji dafa fay kenn déggatu ko. Mhm. donc dafa xaw a tiit parce que gars yi nga dañoo bëgg bës ak bëgg xew. kan moo xaw a tiit waaye. waaw gars bëgg bës parce que dafa xewoon fan yëpp te mhm. xewatut. yi bëgg nañ bës. yaa may dégg léegi fi mu toll nii may wax ak yow nii nii nii ah ñëpp xam na ne euh, Waly lu bëri romb na ko ci gem bi mhm. parce que boo gisee kii di papam Pape Diouf mi ngi mhm. toj mhm. tëgg na ajjuma bi passé Iris gis nga ko lam fa def neex na te ajjuma incha allah da koy tëggaat di Diop te jour bi muy tëgg di Diop mi ngi tëgg baara mun di ñoom yaa ñëpp ñu jàkkaarloo mu fees bay bëgg a dee ñu ne déeta waaye yaa ngi may dégg euh, Ibra Naajo gisee ferme lay def Ibra Naajo day fees ba ci bunt bi day fees waxtaan wax dëgg ca la. Mm-hmm. Ibra Naajo xale yi bëgg nañ ko lool fi mu toll nii. Mm-hmm. yaa may dégg mm-hmm. Mandiaye Seck ma ngay moom ngay njëkk a jot ci almadi ndax moom en face bi res doore bi la. ma ngay toj fi mu toll nii. day tëgg mu fees dell moom jàpp zoo xam ngeen fu nekk. foofu day toj day daal neex. parce dañoo xew. yaa may dégg léegi ak mariage yi loolu du ko tiita parce dafa nelaw ci dafa dañoo nelaw fi toll nii dañoo fay kenn déggatu leen ñu ne ñoom nañ créé bad buzz kenn ku ko fekk muy créer bad buzz loolu dafa ñaaw warul nangu loolu. parce que lii ñu lii ñu koy defloo ñoom dañ koy saraxe. waaw lii ñu koy defloo ñoom dañ koy saraxe dañ ko bëggoon a saraxe ci affaire terrain tey ñu koy gën a saraxewaat di gën a rey Wally Seck. Mm-hmm. li ma waxoon rek jàppoon na ko fu neex ba ñëpp ne woon Wally mi ngi commencé mën a way. Mm-hmm. parce que jàppoon na jaxate laa bi yaa may dégg mu commencé di neex. Hmm? Mm-hmm. bu ñëwaatee na jéem a tegaat jaxate laa bi rek. yàlla baal yàllaay bàyyee ah bës kenn du ko forcer. d'accord mais tey xam nga tey sëñ Bada tey boo nee euh, Wally Seck dafa bëgg bad buzz c'est comme si que ni euh, parce que parce que aussi gis nañ ni yéen yéen euh, waa suba mu ngi mel ni Sidi Diop jamono yéen passé ba mu doon génn moom kili pëm bi def na fi benn bad buzz ñëpp ne waaw Sidi Diop dafa marié après si la nit ñi xam ne ndekete yoo Sidi Diop marié wul dafa def bad buzz comme comme boog mën nañ jàpp ni ba bad buzz dafa bokk ci li nga xamante ne ni moom mooy si viwu artiste. bad déedéet Sidi Diop dafa defal bad buzz. non defal ndànk bul jaawle déedéet déedéet Sidi Diop deful bad buzz. man maa génn communiqué ne Sidi Diop dafa takk jabar te boobu bi ma koy wax dama gis ay photo ay vidéo ñu dugalal ma ko léeg-léeg nag nit ñi mën nañ la piéger jox la ay fausse information noonu la kaa bi demee mais Sidi Diop dafa bad buzz Sidi Diop moom ak bad buzz. <laughs> c'est que sénégalais yi doon dul wax dëgg moo tax ak soxor ak iñaan mais Sidi Diop du def bad buzz kenn mës a gis Sidi Diop taxaw communiqué wala mu euh, jox porte parole ne ko génnal nga wax. mais man maa wax loolu man la concerné maanaam di peuple la concerné concerné wul kenn. Mm. Mhm. mais kay porte parole moo tax a wax dañ ko yónni. Ah. Euh, gis nañ aussi coowal aw Baba Thiam bi gannaaw ba mu amee ak léegi ba ñu bëri euh, commencé ko fàtte sañ ba nga dekkalaat encore coow loolu le lan nga ci jéem a euh, prouvé loo xamante ne ni askan bi xamuñu ko woon. non coowul aw Baba man dekkaluma ko coowul aw Baba. mais dafa fayoon. ñu bëri fàtte woon nañu dossier boobu noonu. non non aw baaba dafa am benn booy bu génn. Mhm. wax communiqué ay ojo yu ñaaw. Mhm. di ko jëmale ci aw baaba ne aw baaba da ko ameel xaalis. Mhm. Euh, comme man damay gëstu ma gëstoo ba gëstu nga xam ne. loolu du dëgg. te loolu information yi. fi mu jógee ba tey see si ñoom neen la jógee ndax faramare ni ni ma ko waxee ñoom dañuy yàqante bëggante wuñu bëggante wuñ ndax kii di ñaaxarañ loo moom ci jëm boppam euh, moo wax ak euh, booy bi saaliw mm-hmm. donc man dama jële ay audio ci internet bi mi ngi nii mën naa koo teg euh, Saliou Sarr. waaw waaw mu ngi lay woo léegi nii quoi aw dafa am benn peleña Baba Thiam da ko luyoon oto Sénégal tour amal ko un million neuf cent. d'accord waaw. léegi aw Baba Thiam mu ngi koy moom muy fay dem nii ànd ak alkaati pour dem jàpp ji ko xam naa moom bi doon la woo léegi nii pour. amul a maa ngi koy déglu ok à

Euh, waaw gorol la ci Wally Seck mhm. moom ñaar day fréquenté la ci Wally Seck ba pare mu di ko fréquenté mhm. donc lii dafa ñaaw c'est vraiment honte kon moo tax nga te ñëpp xam na ne ñaa yàgg na taxaw di wax ne lépp lu mu am mhm. ci yàlla ginnaaw yàlla Wally Seck la donc lii ñaaw na trop aw baaba caam nga ci boppam xamal nañu ne ñu carrément moom lii boo gisee ñu koy def parce que ñu bari Euh, buñ sañoon tey kii di Khadija jabaru Alioune Seck mm-hmm. sëy bi tas waaw mm. ah, maanaam sëy bi du dem waaw mm. donc buñ déggaatee ñaa def li dafay xaw a doy xaw a luus mm-hmm. dañ waxante dëgg mm-hmm. lii amul suba teel suba teel doo fa gis ay xiiro ngaayoo kenn du fa yàqante ñoom dañuy liggéey concentré wu mais ñoom seen biir rek ngay gis ñuy def ay kalan ñaa aw fii Adamo aw fële Pascal Omaro ànd Pawlish Mbaye ber yoonu daara mhm. ànd ak Adamo mhm. Pawlish moom kii gën a bon ci ñoom lay àndal muy kii di Adamo mhm. délégué Amar ak ñenn ñi duñ laale donc man je ne comprends même pas donc man groupe boobu ma ciy woo naan ma ñëwal foofu <laughs> groupe bu amul jàmm man lan laa fi wuti kër ñàkk jàmm lan laa def non man maa ngi ci man maa ngi baax <laughs> non vraiment d'accord comme daal yow daal euh, looloo la métti ba tax na nga génn pour indi ci woon ay leeral ci le fait que euh, tuuma bi bi nga xamante jël nañ ko teg ko euh, ci kaw aw baaba ci am waaw aw baaba jigéen la nekk ci ay mbiru boppam donc problème bu mu mën a am buñ la ko waxee moom mi nga xam te ne ñaaxarañ loolu di góor waru cee add mhm. bu ta defar bu dee ñaa li muy maye moo ko moom xaalis bi muy taxaw di ko may ci public bi dëgg la pour man un million neuf cent bu ko aw baaba caam amalee nit. Mhm. ñaaxarañ loo war naa a taxaw fay loolu. waaw mhm. ah, loolu loolu mooy dëgg. Mhm. bu dee maye bi laax dëgg la. mu xam ne kon Wally Seck kii goro Wally Seck la. oh. métti na métti na trop waroon nañu waroon nañu def ni lii xam naa ne bu ko yëgoon sax du demee nii barke Sidi Ibrahima Fall parce que Pascal mi fayal démb euh, ndax euh, idaali cent mille francs noo bu yëgoon lii du def lool billaahi waaw. affaire bi daal métti na la sëñ waaye aussi euh, jot nañu sànq euh, benn nouvelle bu yegg si léegi léegi ki nga xamante ne moom mooy gri euh, gri de gannaaw bañ ko tuumalee woon ci sàccum parfum gis nañ ni yoon teg na ko loxo ndiki sànq lu yàggul dara. waaw dëgg la loolu ni ngeen ko jotee rek dañ ko jotee mm-hmm. ne gri de arrêté ko gri de dañ ko woon dañ ko dañ ko woon police mm-hmm. donc biñ ko wooyee ñëwut après gars yi dem jëli ko. waaw noonu noonu la demee. Mhm. d'accord ok sëñ Bada dañ koy tëjee li nga xamante ne ni euh, moom mooy wàllum euh, politique tey njiitum réew mi woote woon li nga xamante ne ni euh, moom mooy dialogue ñu bëri nag boycotté boobu la dialogue est-ce que yow d'accord nga si boycotté boobu noonu am wala yow est-ce que nga ci li ñeneen ñi wax naan njiitum réew bi jamono ji amul benn droit di woote dialogue lu dul ni dafa war a tànn date pour nit ñi dem ci élection présidentielle yi. non du man ko dialogue pour man da doon waxtaan ak njabootam waa këram rek woo leen di waxtaan ak ñoom. Ah, parce que dialogue dialogue moom mooy li nga xamante ne ñun ñëpp ñoo ko bokk ñu daal di ci woote ñu ñëw taxaw waxtaanee ko mais bu dee loo xamante ni yàgg say doom la. ndax ña ma fa gis ñëpp ñoom ñëpp ay ce sont des libéraux muy kii di Eh, ah, kii di kii di ah non sécurité eh, kii di kii di Abdoulaye Boun Dionne mhm. ñoo ñëpp donc ñoo ñëpp a dem man daal li ñu war a wax waxuñu ko mooy dañu war a wax si Sénégalais yëpp mhm. si gileen digaale parce que lii xew Sénégal ñun ñëpp dañ ko daan dégg ndax coup d'état ci yeneen réew yi dañ ko daan dégg mosuñu ko dégg Sénégal mhm. waaye tey yàlla def na dal nañu ah nu ñu coup d'état la parce que coup d'état la parce que vingt cinq février démb élection dafa waroon a am tey jii président Ousmane Sonko moo waroon a toog ci réew mi Jomaay Fay toog. yaa may dégg ah. non moo parce que dafa moo waroon a moo ñoom tey ji bu woote woon def ko ci normal dañuy dem mais tey coup d'état nañ Sénégal jaay nañ ñu doole euh, fomm ba tey ñu toog parce que Macky Sall dafa dafa toog par la force lii nga mooy vrai vrai coup d'état te bu ne coup d'état mhm. mën na ne ñi fi mujjee coup d'état ñëpp mhm. rayuñu kenn mhm. mais boo xoolee Macky dafa rey ah mais ñaata ñoo fi dee boobu ak léegi. doy na waar. Mhm. kon coup d'état bi fi am ci Afrique. Mhm. ci ci jamono ñun ñu ngi koy doog a gis. les vrais coups d'état normalement sénégalais ku yeewu tey ko gis sa morom nga ko wax si gindigaale. loolu mooy dégg man lii laa wax. la tëjee nanu ñaan nga. Mhm. xéwal wa xanaa di di leen sant di leen gërëm di kontaan di am mbégte rek ak ci yéen. bu baax a baax. voilà mu nekkoon chaîne Serigne Bada Kéemaan kon nuñ koy defee rek ah nee naa la chaque semaine dañuy ñëw jël si ko waxtaanee lépp rek loo xamante actualité people la waaye njàmba saale si li nga xamante ne ni euh, moom mooy actualité politique yi jaajëfalaale sama caméraman Thiandoum nee naa la saa bu yaanjee rek ah moom moo fi jaar di leen di daje ba beneen yoon ak beneen invité d'ici là portez-vous bien